laa ñu ñoo metti gan dee toog la gëmloo boppa dara te kenn mënut laa wax fu mu jógee ñu bëri ñu ne péngu coronavirus bi tax ba doo am doom te amuñ ci benn firme kon fexe leen ngeen dem péngu ji pour aar seen boppa

seetaan Gambian Talents TV tey nag dañ leen ñëwaloon fi nga xam ne moo di vest bi parce que gis nañ ne fan yi moto ñàkk na trop lan moo ko waral ak naka la ko askan bi gisee loolu moo waral tey ñu génn fi pour laajte leen lan lañ gisee ñàkk moto bi si biir dëkk bi nit ñi dañuy soxla moto war a dem school duñu ko am ñi soxla moto war a dem jàngi war a dem liggéeyi duñu ko am loolu la ñu fas yéenee dugg nag tey fii vees bi laajte askan bi ñoom lan moo si seen xalaat Ansoumana ah ñu gis ne fan yi ñàkk moto baa ngi bëri si biir dëkk bi noo ko gisee. du fan yi du fan yi rek ñàkk moto kay loolu bari na eh, yàgg na si Gambia ñun su ñu ñëwee liggéey Brikama ñu ñu fay 50 dollars pour ñëw Westfield from Brikama to eh, Westfield 50 dollars soo fan dañ dee wax 100 dollars loolu dafa metti trop te moto yi suñu la ebee fii. ñu yóbbu ñu drop la Latrikunda from Latrikunda ñu ne Tabokoto ñu drop la Tabokoto from Tabokoto ñu ne Lameng ñu yëpp ten-ten dalasi ngay fay balaa nga aka aga Brikama daal loolu dafa fekk nga fay almost fifty dalasis soo ñun nii la ñu nekkee de e every day moto so jógee Brikama mu ñëw Koof Latrikunda Kaw Johnson e mu delloo Brikama te danga koy fay eighteen dalasis loolu dafa métti si ñun trop ñun liggéeykaay oh we are we are definitely finding a very tough Eh, to ñew eh, to kom to wok nka mum fo wala mu ñenti ko ntel do kulal kabo bir kama kana westfield tallulo nka wala jo yajel nim moto bo tabir kama akadam we eh, ayna ay dan latri kunda o kaw johnson ay murung andu ka jo munna tannin sai e ka jo wala jan ni 20 e dala sidiyala ate di lela so ntel be wala nyama kabo bir kama kana westfield ñim li ke ja ke ka fo ye 50 de la jo 50 de la si a metale wo metale wo sa min safo biri serundum almost as more than 6 months more than kari woro dan nim bir kama ni la lafte tar ya kay talu li ka wala jo sayin dollars keme ke chaaji ka bo bir kama kanana de dollars keme ke chaaji walla ah okay so, so, uh, ol biri jumoo salim beloorin jam maŋ motoo soto lafita kasa e i biri kaama le maŋ motoo soto motoo muŋ kata taa biri kaama maŋ wo le maŋ wo le je nka motoolu je le ye a fo n ko laatiri kundaa i e ka daŋ wolu to haa yes ñu bëree ngi wax ne politiciens yi jaruñoo sànnee carte ndax gis nañ ne fan yi ñu ngi yëpp seen i gëlé-gëlé di dem ci nomination bi te nit ñaa ngi soxla ay moto amuñ ko ñi war a jàng ñi war a liggéey yow loolu noo ko gisee ah nomination o man e mo jamaa sambala ay mo di quadro ni te qualifyta ita yol samba dura manjare ka mo million e wili wili tawul samba nomination o la wo man wo fam man koy fam because eh, akake kataleti i b'a jela ko ino dosi barama no jele aman jere ay barama nte do ko la red cross janne ya jele bad lolun na volunteer sol bita kanne andu bita kay bina kan barin tel jam moto ko on moto jele ya jele nyeng akadan latri le ya jele na futal latri kunda be nyili jindi la le be pare aya foko on kata lamen be dan na lamen na ya jele na futal lamen ayol jindi aya foko bir kama aka chokin chokin le ya no wo man tol febo wo mo ti jaay mum febo jannin birkama mbe jammuntu jannin birkama dala standin saylemo e ñanta wole jola e futa birkama bari motole fan buka soto mun yalon ko i ba jola direct birkama wo buka soto ah nin fuelo manketa man saya kata ye transport union ya improve gambia dingol ye ah katu fuel manko anyway famata mo la im banko kanne ko fuelo le mankita itele manko do soto bar ko fuelo mankita famata o moy layim banko kanda yo ya kata ye fuelo naati transport ye na ñaama e mansa ye mansa ya kata banko dawo da government ne ka transport control but government is not controlling transport no kuwo kudiyata driveol wole rek i ka wole charge andu i ɓa jolale because ila haajole bi jee kata la haajool la wo haajo wala important a nama important sisi bari there is no control pour pasol paso mu ndiyata drivol ye rek i kawole caaji ha so e fana mamoye eh, radio to i baa ma masakuna ba fo kam comme la kirin folo molse uh, molse uh, hako hakko le comme muñi folol def kabi kaba commencé nanu moy folo nde famu drivol na ɗo komu dravinnete bifo ntel tata ntel tata le pour ka welo ken na motol kono isan so wobi jele bar gas welo o man soto ha lan nga fog moy solution bi di eh, solution mu ñene do man sale bu ko ma there is no country mu ya lon ko government should control everything ka wala foy man sale ka control man ni nya kas man e banku diun la ila banku diun le be batala andu wo ba ila wo bankudiŋo le i baadeŋolu be tara la wolu kono le musol fana moy ko dol fana dole dole gasolo mabole i ka bunda ya mabole pour ya pour sala fano rana yi ga gasolo be mankinde nguru ngo fana ru muso mole malan fana fo soto dal soto so mine ma ko te sa a aussi fal ila miro fana fo mole no dol no mawo moy de mawo moy de barin signe fo dron ya kata nati banko ɗo kuwoy e ka ñama tanin nayi sonoya banko ɗimoliya tur man Mariétou laa tudd Mariétou ah, lan nga gisee ñàkk moto bi dëkk bi fan yi laa ko ma soose boobu moo tane nag olof moom dégguma ko bu baax tontuma mu soose ah ok mo ɗi ko ko le nak according to people eko fengole ɓe keering a tonde essence kole ɓe keering fo wole ɓe keering fo temantere keering ba ngay ɗon no but problema ɓe dawoda ya train nak na sot awde sadia movement o ñin se usine o gos mol ka bol dula jambal to kana dokuwola abuka easy gos ndefan o kulun kulun botanan all the way from jarasoma to here bo janin ka fotana jang it was late because of mine keda moti kuwoñin ani akor si fanan bo fanga min ka mol de ma fana jama jamal fana ka problème on soro silo kané so mo kili on ne problème on soro bos do na ko reke ka mol lafa o bos kili on fana aka problème o dila le spécial mo mi alon ko fengo atone ni ni jio ka ke problème o tile so ni mol siara dame da kala problème so problème be dawo da nyan ka trele ye mol ma ko e saje movement on ngi easy cool kono wa ñu bari ñu ngi wax né politiciens jaru ñoo sanil carte because gis nañ ne fan yi ñu ngi romb ak seen gële-gële di dem te ni ñaa ngi soxla oto war a jàngi war a liggéey amuñu oto yow loolu noo ko gisee ah loolu moom kay aw ma si dara nag because moom affaire politique moom am not part of it nag but my concern is that yemol mako essence ko for essence wala for gas wala yemol mako ya jibe all things that can be possible yemol mako saje movement on jinge easy because student jamal fangol bijele bi thing since i was when i was going to banjul early thank God nga leave soto len tara straight but nga moja maja it was around 8 and 8 nyanda student all tarla class kono le but because of nyim moti ko mimbe ker wala na student jamal bi jele they will lose their classes ila lesson jamal bi jele be lose la la le because of nyim moti ko mimbe ker so nyanda dinni wal ma la le it's a traveling ye easy yeah nga wala soto nak thank you very much lan nga fokk moy solution bi yow solution e eh, masokuna lento mol ma ya jibe min be possible la rek essential ñi yes ay stable o gaswelo ñi comme ya fa ñame Esaje, xam nga kool se ano man demba ciun la tuda fani nan nga gisee ñak moto bi ci bir dekk bi coono bu metti saka ñun fu ñoo ñibi ñun dañ sori torop ñun ñu ngey ñibi be latiria fim ne ni suma ñibi ni almost dina de fay muy lu tuuti tuuti 50 dollars gis nga bala ma aga fi ma ñibi dafa jé tak dëgg dëgg coono bu métti lañ nekkee fan yi ma luy problème bi nag xaw ma lala ci driver yi la xaw ma ci essence yi la soo léegi nag gis nga fi ma taxaw nii maa ngi war a ñi balaa maa àgg kër 5 dafay jot au 6 yes. ñu bare ngi wax ne politiciens yi jaruñu di sànnil carte because gis nañ ne fan yi ñu ngi yeb seen gëlëgëlë ba mu fees di dem ak moom nit ñaa ngi soxla moto mënuñu am moto loolu yow lu si sa xalaat. waaw xëy na politiciens ñoom seen soxla lañ ñun suñ soxla lañ toppa soo léegi da ngaa gis ne moto yi moom taxi yi dañooy liggéey rek fu ñu gisee xaalis rek foofu la ñooy deme ma ne ko taxi yi fu ñu gisee xaalis rek foofu la ñooy demee suñ gisee fi mu ne ni yow yaa ngi war a liggéey fii suba ba ngoon mais bi nga am 500 kii ñëw na jox na la 2000 nooy def nga dem foofu ah lii mooy problème bi nag saka ñàkkam gaasuwel bi yaa ngi toog ci gaz essence bi ñaari fan amulo essence gaasuwel nooy def soo amee sa benn 20 litre foog nga konomi ko de nga xam foo koy jaarale nga am tuuti at least num tuuti tuuti ma belewuma driver yi de dëgg dëgg because man mi ngaa gis ni driver laa dama liggéey ba wàcc a gaare suma oto bi léegi maa ngi ñibbi balaa maa àgg kër six problème la coogi dëgg dëgg dëgg coono coono bi métti na trop definitely lan nga foog mooy solution bi solution bi daal ah kana ñu seet rek naxala yàlla nañu ko yàlla yombalal daal laa mun a wax daal dégg nga na nañu ko yàlla yombalal incha allah te dina yomba. Ah, fan yi ñu gis ne moto mu ngi ñàkk lool noo ko gisee. waaw ah, maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di siyaare ñëpp dëkk bi ñëpp di baal àq ñëpp di baal àq ñëpp waaw yàlla may xam jàmm jàmmal ñu. waaw ñàkk gasoil bi moom métti na trop si ñëpp la métti ñu wuti na si ko samay mag dina drape ñëpp ñi xam jafe-jafe drape yaa ngi jafe-jafe ñëpp nga am jafe-jafe waaw ñu na si daal moom waaw jërëjëf. ñu ñu baree ngi wax ne politiciens yi jaruñoo sànnil carte because ñu ngi gis ne fan yi ñu ngi yëpp seen i gëlëgëlë di dem te nit ñaa ngi soxla moto gisuñ ko ñi war a jàngi ñi war liggéey ñu ngi sonn ci yoon bi yow loolu lu si sa xalaat. non driver ñoom amuñ kuñ parat driver yi ñoom li nga xam te ci seen liggéey rek lañ topp amut bi policier na policier xam nga kuy liggéey moom boo ñëwee njëw kii luyee la fay le lii kii luyee la fay la lii kii liggéey moom li ko arrangé rek laay jël waaw waaye amuñ par parlant waaw moom ñëpp lañ fi neel because amul président bi amul bii tey kii moo fee toog ëllëg kenn toog fee rek waaw moo tax driver yi amuñ kenn ku ñu paral ñëpp lañ jàppal rek dafa def si ni liggéey bi rek waaw kenn ku ne moom sooy liggéey sa intérêt nga seet rek lool rek waaw. lan nga foog mooy solution bi. ah solution bi daal xanaa ñuy ñaan jàmm rek yàlla mi am jàmm jàmmal ñëpp waaw ñu ki war a jël affaire bi yàlla moo xam na ko bu baax waaw jox ko ko rek waaw loolu la rek. waaw loolu la. ñàkk moto mi lu ci solution. non non oh, gars yi dem de odo ji gasoil nañ dimbale nit ñi rek ñuy odo am dépôt su fekkee ne gasoil mi ngi war am boo amee sa dépôt reserve ah, boo waree am two hundred thousand litre bu nga xam ne ni da nga ko paak fekkee ne fayal manqué na ñaari weer wala one moon war ngaa man am dépôt bu nga xam ne nii war nga ko mën a yusi dëkk bi foo gaal gi da ñëw because gi machine la ndax anytime mun na pan si ko ndox bi te bu paanee technicien bi balaa nga koy dépanner daf mën na jël time waaye soo amee dépôt nga root dépôt ba fees gaal bi mi dama ko ñëw ah fi gasoil war a manqué loolu la si amoon wax daal. fan yii noo leen gisee ñàkk moto yi si dëkk bi. ah métti rek comme nu ko nit ñi gisee rek ñun moom driver lañ buñ sañoon lépp yomb si nit ñi ndax ñun bu ñu xëy client ñoo tax te ñëw gaare sa moto fii ba jant bi soo nga ñibbi sa kër wala nga dox ñibbi sa kër. beneen beneen coono la man démb dama wàcc Banjul taxi laa amee comme taxi driver yi waaye dama fay li ñoo fay rek ñëw wàcc Westfield xam nga ne Banjul ak Westfield su ma see fay Honda daw si du lu ma gënal te du ma ko caaj client itam ah du noonu ah, ñu bëree ngi wax ne politiciens yi jaruñ di sànnil carte because gis nañ ne ñu ngi yëpp seeni i gëlëgëlë di dem ak moom te ni ñaa ngi toog soxla moto amuñu ko yow loolu noo ko gisee loolu ku ko wax loolu ñàkk xam rek man du ma dem na keneen du dem kooku boo ko ñemee na ko sa xam-xam soriwut man nguur gannaaw nguur buur ñun buur nguur mooy suñu buur kon lépp lu ñu def rek dana métti si ñun waaye il faut ñu muñ ko daal noonu laa ko gisee. lan nga foog mooy solution bi. solution bi ñuy nekk ensemble nañ waxtaan ak baadolay rek ñun bu ñuy jël jël suñu gerte gi da ko ji si si yàlla moo tax mënuñoo defal suñu bopp na nañ xaar yàlla rek. kon ñun ñu ngi leen di xaar nañ leen xaar rek lu ñu defal ñun fekkee mënuñu mënuñoo jëf nañ wax loolu laa si xam de. Mor Mangane. ah fan yi nan ngeen gisee ñàkk moto bi si biir dëkk bi. jooy rek ba sonn ñun ñë ak yéen ñëpp koy bokk di jooy. bi du suñ sago ku am moto bu amul gasoil moom du daw te duñ mën a eno nit ñi yóbbu leen moo ñu taxa taxaw fi ñu taxaw nii loolu moo ñu fi téye ñàkk gasoil yow da ngay ut auto wala yow borom auto nga borom auto la waaye auto bu amul gaasuwel mu ngi melni awma auto rek damay ut auto wa ñu bare ngi wax ne politiciens yi ñoo sanil carte bi gis nañ fani ñu ngi yeb seeni gele gele di dem ak mom te nit ñaangi bëgg liggey ñi bëgg amuñu moto yow lolu si sa xalaat politiciens yi seen bop leen fi neyal seen auto yi buñ bëgge gele ñu daw ñep daw neen ñoom ut neen gele gele solo leen gaasuwel ñu dem jëli seen nit ñi niñ bëgg ñu dem jëli leen ñi ci des ci mbedd bi waaw lan mooy si solution. solution de booy muñ rek xam ne yàlla moo ñu moo leen may doole bu ñuy jaay rek bu bés bu ko fi yàlla génnee ñu ànd ak ñoom dem doxi seen soxla yi. waaw ba léegi rek askan gi nga xam ne yéenay seetaan Gambia Talents TV ñu ñëwaloon leen nag fii nag tey nga xam ne moo di Vestfyn waxtaan ak askan gi nga xam ne ñoo fi nekk nan lañ gisee wàllum ñàkk moto bi nga xam ne gis nañ ko fan yi waaye askan bi wax nañ li si seen xalaat ñii nee nañ liñ foog ne loolu moo waral ñàkk moto bi mooy essence bi nga xam ne ak gasoil bi kon nga xamante ne fan yi nit ñi amuñu ko ba pare tamit nee nañ politiciens yaa ngi yore seen i ay gëlëgëlë di dem ak moom di doxi seen i soxla bàyyi askan gi ñu nekk seen biir coono dégg ngeen ko bi noonu ne ni mu rombee mu ngi tontu mu ne ñoom problème bi yëpp gasoil la nit ñi sonn nañ nit ñaa ngi taxaw si naaj bi suba ngoon bu dégg bëccëg ñu bëgg moto fii be mbir fii bee Coste ni nit ñaa ngi ut moto mënuñoo fexe ba am li nga xamante ne moo di moto mu nekk leen coono bu rëy a ñi sax dañoo yokku li nga askan wi génn leen génn ñu pengu je fagar lu mo gan fajo fa jooyaay mooy lu ñuy aar asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy man la al oustaz mohammadul amin kan al mansouri maa ngi di massaw ci feebaru mbas bi nga xam ne wër na àdduna bi tëj na doomu aadama yi ñu koy wax coronavirus coronavirus ku ne xam na ne rey na doomu aadama yu bare bare bari ci àdduna bi feeg am na ku ko am rek yëgal ne kenn muccagul lu ciy pexe la ciy pexe mbokk moo di nga jóg gaaw léegi léegi bi nga déggee sama kàddu dem jëli vaccin bi comme vaccin am na nañu sant yàlla te vacciné dalalal sa xel nga dem jëli vaccine bi ndax nga aar sa bopp aar sa njaboot waaye aar ñeneen ñi nga dëkk ak ñi ngay jëflante